asalaamaaleykum mbokk yi nuyuwaat nañ leen bu baax a baax a di la wan ne welcome back si suma daily news te mu nekk Thursday di 7 euh, of November balaa ñu dugg si xibaar bi kon nu ñu leen ko dee waxee rek euh, su fekkee topp toppaloo ñu euh, suñu TikTok page yi Baraka TV ak activiste baabu ñu ngi laa wane nga dal ñu suñu YouTube bi tamit ah, ngeen subscribe foofu noonu Baraka TV ñu ngi Facebook ah, ñu ngi Instagram tamit ah, ñu ngi leen a ñaan loolu bu baax a baax a baax pour ngeen topp ñu foofu de ñu beneen xibaar boo xam ne am nañ ko fi de mu ne yow da nga nekk koo xam ne kenn warul laa óolu yow da nga nekk koo xam ne tamit mënuloo jiite kër sa de eh, duusaano loolu la dal di eh, tontu Mama kande lan moo waral li nag dinañ si dugal léegi léegi ngeen toog ñu ne koo xam ne ñu ngi ko ooyee Mama Kandeh bi nga xam ne moom moo nekk jiite euh, parti boo xam ne daal euh, mu ngi nekk Gambia ñu ngi leen a ooyee GDC de moom ak euh, koo xam ne daal ñu ngi ko ooyee Duusano Duusano ñu ne moom moom moo nekk political adviser yi nga xam ne moo nekk suñ jiite réew mi di président Adama Barrow ñoom ñëw daal di nekk di sànni wante kàddu lan moo waral lii nag ngeen toog rek tuuti ngeen déglu ñu. ñu ne eh, du saanoo ki nga xam ne moom moo nekk eh, presidential adviser bi de eh, moom na dina delloo safara bi Mama Kandeh de comme nuñ ko waxee ñu ne lii lan moo waral lii daal ñu ne koo xam ne daal moom moo nekk jiite Gambia Gambia Democratic Congress ñii di leen ooy GDC seen njiit bi di Mama Kandeh ñu ne Mama Kandeh daal moom dafa daal di wadde mu ne président Adama Barrow maanaam taxaw boo xam ne bëggoon na koo def de pour next election mu nekk taataam de mu ne lii dafa ne dafa wane ne président Adama Barrow maanaam moom. Euh, duy sàmm kàddoom bi te dafa nekk koo xam ne tamit maanaam respecté Gambien yi ak yeneen kàddu yoo ko jëmale ko di président Adama Barrow ko ooyee Dou Sano de Dou Sano moom daal dina tontu Mama Kandeh mu ne tamit maanaam respecté boppam euh, lii tax na de Mama Kandeh euh, mu nekk koo xam ne kii a jiite loo xam ne mo mooy Kirsa euh, Santuma euh, di jiite euh, ñu ne ajuma bu passé noonu ah, koo xam ne daal mu ngi ooyee Mama Kandeh moom daal dina oo Gambia ne de mu ne ah, nañ daal di bañ ah, te buñ toppa président Adama Barrow de maanaam kaddu boo xam ne jël na ko pour ne moom président Adama Barrow dafa taxawaati de pour ñetteel yoon bi pour jiite pour nekk président ni Gambia de ak parti boo xam ne daal ñu ngi leen a ooyee NPP moom moo war a jiite gars ñu ne du saano daal moom daal dina mm, eh, sànni eh, Mama Kandeh kaddu de daal dina ko wa kaddu yoo xam ne daal ñun daal dinañ wax de ñu ne moom ah, rafetalu ko sa de daf ko kande eh, direct de maanaam ah, nekkul ne sa kuy gaaruwaale de daf ko ah, o kande de mu dal di ko wax loolu loo xam ne yëpp mun na ko bugg na ko ko wax moom dal dina ko wax de mu ne ana ana constitution boo xam ne daal Gambia loolu lañ yaakaar de mu ne ko ne jaay eh, président Adama Barrow pour mu taxaw taatam nekkul loo xam ne daal warul maanaam dafa nekk si eh, constitution bi benn constitution yaaxu yaa président bi yaaxut ko luy tax ngeen taxaw fële di wax loo xam ne daal moom ah, ah, du Sanore daal dina wax de ah, mu ne na gars yi bàyyi di di wax wax Gambian yi wax yoo xam ne daal amut te di réelal ni de moom daal na wa Mama Kandeh de mu ne ko ne nekkoon nga National Assembly member yow war ngaa xam constitution bi naka la demee ak lan moo fa nekk mu ne ko ne bon ga bàyyil wax yoo xam ne daal yaa ngi ko wax di réelal Gambian yi président Adama Barrow moom dafa nekk koo xam ne daal moom Gambia moo ko ñor te lépp loo xam ne mu ngi ko def de daf ko dee teg si euh, constitution euh, bon nag euh, yow da nga nekk koo xam ne doo dee wax dégg mun loo jiite maanaam kirsa santuma maanaam eh, eh, dëkka loolu la ko duusaano wax waaw moom moom jaruñu comment foofu sax moom ku sa opinion la